ce que tu dis, ce que tu <laughs> fait. Donc voilà. Et je pense que aussi le plus important, c'est ça. C'est-à-dire que aussi euh, mënuñ la euh, balaa ñu naan sax kaay rendre compte yoo war a def rendre compte. et da nga war a yàkkamti pour rendre compte parce que il s'agit de ton de ta de ta crédibilité. Mm-hmm. il s'agit également de ce de son image mooy tey euh, et ça ça c'est gênant d'ailleurs nga toog sa kër. ñemewoo seetaan télé Sénégal. Mhm. loolu am na ñu bëri tey ñemewuñ seetaan site Sénégal. parce que mhm. xam nañ buñ koy seetaan ñu dundal leen seen rapport. et je dis bien am na fan yi di ñëw bu méttul suba. Mhm. am na si ñaaru nit ñoo xamante ni ay kuréel laa bëgg a wax. ñu ngi leen tudd ci rapport yi. Ah di ngeen def conférence de presse léegi. Hmm. préparer sa kamera <laughs> kay maa la ko jox ñaari kuréel yu mag hmm. ci réewum Sénégal fii. Hmm. dañ leen tudd ci rapport yi Cour des bu ñu deful suba point de presse. dinañ ko def samedi. Mm-hmm. bu ñu ko deful samedi balaa lundi dinañ ko def en tout cas loolu man maa la ko wax. mais du mais du ci presse bi la ñuy leerale la ñuy seen ubbi. mais presse il faut que justice euh, procureur de la république mais presse tamit du tribunal. Mm-hmm. moo tax le OFNAC moom d' lu mu wax nee na. jël na quarante dossiers mu jox ko ay autorités judiciaires pour mu saytu xool. Hmm. léegi je pense que également la cour des comptes ce sera une belle occasion parce que cour des comptes dafa am chambre administrative. mu hmm. am loo xamante ni c' côté euh, pénal. Hmm. côté tribunal boo xamante dafay àtte gars yi xool ñoom def defuñu et je pense également. Euh, li nekk ci dossier yooyu loolu rek doy na pour ñu lijjanti ko gis nga sëriñ bee nekk euh, commune bu Médina xaw ma lan mhm. maa ngi yore dossier euh, maire bu bu bu bu bu Médina ak ak maire bu Saint-Louis et ah j'aurais envie de revenir ici le pour pour ah lan moo nekk ci ah. dossier boobu <laughs> mais Bamba Fall de Bamba Fall Médina boo wax commune Médina do di nga gis lu ma lu ñu bind si ba Médina mhm. di nga xam lu bëri lu ci dëgg parce que xam nga délégué des quartiers dafa am benn loi su ma juumlee bi wax ne dafay tuddee loolu indemnité ñu ne les délégués des quartiers. Mhm. bu dee ci villes yi bu dee ci village yu tuddee leen les chefs de village. ñu ne am nañu indemnité de de de de mensuel boo xam ne mu ngi toll ci. Euh, cinquante mille léegi boo ko dajalee. Mhm. Euh, mu tud mu doon six cent mille par année. Mhm. léegi ma Fall dañ ko ne puisque moom dañ ko fal 2014 moom 2015 rapport bi ñëw indi gestion 2015 ba 2018. mu ne 2015 Bamba Fall moom bu ñuy ñëwee dafa wax ne Médina 29 délégué chef délégué chef de délégué de quartier 29. Mhm. léegi 29 yooyu bu ñuy fay chaque mois dañuy fay six euh, chaque année plutôt dañuy fay chaque délégué de quartier 600000. Mhm. léegi cent mille yooyu boo ko multiplier par vingt 29 chefs de quartier. wala délégué de quartier dafay doon 17 millions et quelques million cinq 500 mille francs CFA léegi chaque chaque année quartier day yokk mu yokk ko 44 mu yokk ko ba 2018 xam nga ñaata quartier moo fa am mm-hmm. mu def ko 108. huit quartier 108 quartier léegi léegi Médina man man dëkkoon naa Médina mm-hmm. dëkkoon naa fa ma bu ñu ko bu ma ko liiree dama ne sëriñ bi ñun comment quartier Médina yi di yokk chaque année. Mm-hmm. parce que boo yokkee délégué de quartier. Mm-hmm. da nga yokk da ngay yokk quartier. parce que délégué de quartier amul sans quartier. donc nan la mën a jógee vingt neuf. ba 108. ba 108 diggante 2015 ba 2018. te Médina du du koñ boo xam ne dafay yokk. voilà amul espace. amul espace c'est ça <laughs> géographiquement c'est impossible. Mmh. bu doon Touba wala Kaolack nga ne. mooy mmh. population bi dafay agrandir mmh. croissance xaw ma lan. mais bu dee fii mënul lekk. parce que loo yokk yokk man nangoon naa sax ñu ñu ñu laaj ko na quartier yi mu ne bon gratte-ciel yaa ngi ci kaw. mais amul Médina. donc je dis bien loolu. mu mu mu boo ko dajalee mu ngi toll ci 64 millions et quelques yoo xamante ni. Mhm. boo ko mooyee ak 17 millions yi loolu mooy gap écart bi. cour bi ne y on écart de tel. donc ñu laaj ko ñu ne moo euh, certes Médina commune bi. Mhm. la mairie n'a pas créé de nouveaux quartiers. Mhm. mais xamul la la wax ba ba génn si mais bu dee amul. nouveau quartier waaw mais parce que loolu rek moo mun a am. léegi da ngay jël 29 108 moyen 29. léegi moyen 29 li ngay trouvé mooy. les quartiers qui ont été déclarés par le maire, ouais. mais qui n'existent pas à la Médina. Et ça également, c'est extraordinaire parce qu'il y a de l'argent qui a été payé. Mhm. Et loolu nag man li ma jaaxal rek mooy comment le payeur a pu payer euh, mhm. sans pour autant mu am xanaa booy payer di nga xam turu tour délégué de quartier parce que dañ lay jox liste. Mhm. maintenant bon c'est pas peut-être il a créé de nouveaux délégués de quartier à la Médina sans ñu xam ko. mais en tout cas fay nañ ku nekk six cent donc c'est six cent xamante ni bon kenn fu ñu dëkk. effectivement et c'est grave. loolu c'est très grave. et et aussi am na rapport et je que. rapport boobu di am occasion li nga parce naa la ko envoyé. <laughs> la la la mairie de ville de de Saint-Louis. am na. man kay maa ko yor. lan lan nga jàng ci rapport boobu lii rek moo ko dama gis titre bi rek. Mhm. waaw mais gestion de yónnee ma ko man ma ma comme ça comme ça ma ma am ci li ma xam ñu jeexal justement si décret yi nga xam ne président de la république Abdou Macky Sall euh, bàyyi woon na ko fi presque treize décrets yoo xam ni dañ ko daal di abrogé. Euh, Euh, par le président euh, Diomaye Faye euh, juste dem moom ne d'accordul d'accord ci yenn ci ay abrogation yenn dossiers yi ci mel ni Cour suprême c'est une question d'appréciation et l'appréciation est libre c'est une question d'être d'accord ou pas parce que yaa xool noo koy gisee léegi moralement est-ce que c'est concevable que le président de la République ñu fal ko le 24 mars 2024 mm-hmm. ñu teg ci 4 jours président di def décret yoo xamante ni moom xam na ne bu doon am temps hmm. amoon na temps pour def loolu hmm. mais curiosité rek question bi nga war a poser pourquoi on attend que le président soit élu quatre jours après le 28 décembre hmm. le 28 euh, mars 2024 ñu signé ay décret yoo xamante ni dafay engagé régime bu bees buy ñëw ci loo xamante ni xam nga ni lii baaxul benn am na benn benn mais loolu warul nekk élégance loolu républicaine man sax warul. boo bëggee sa réew waroo ak waroo waroo waroo engagé sa réew ci loolu. et loolu da ngay dem et surtout loolu. jóge na sax ci décret présidentiel ci décret président buy bind. Mm-hmm. dem na ba si yenn ministres yi. ñoo xamante ni dernièrement la ñuy signé ay contrat pour dugal ay nit maanaam parce que am na ñoo xam ne dañu liggéey foofu pendant ay ati at wala ay weer. Mm-hmm. amuñu contrat mais balaa ñuy dem ñu defar contrat yi bu dugal ko. pour ñu parce que xam nañu bu ñu demee kii ñëw bees mën na leen fi jëlee. Mhm. parce que loolu amuñ amuñ sécurité. ci ci seen place maintenant loolu. c'est extrêmement grave mënoo ko def nga ne da bëgg sa réew mënul nekk. Mhm. parce que boo ko defee yaa ngi engagé Séné budget wu Sénégal trésor. Mhm. yaa ngi koy engagé ci paiement salaire yoo xamante ni ci kanam la masse bu matoon dix dafay dem ba ma loolu également léegi la première conséquence mooy su weer deewee état wu Sénégal mënu ko fay. ñooñu nga xamante ne ñoo leen dugal ci loolu ñooy taxoon naan ah gis nga leen mënuñu sa fay salaire yi et loolu président bu xamee loolu mais sëñ bi da koy dakkal mm-hmm. léegi lee c'est une question d'appréciation par rapport à la nomination euh, de l'avocat général à la Cour suprême mm-hmm. parce que d'abord la constitution lu mu war dafa leer daf ne le président de la République nomme au aux emplois civils et militaires mm -hmm. donc toute personne bu mu jàpp ne poste bii war naa la fa mën a teg te nga ma mais da koy fee da koy fiy def mm-hmm. tey bu ko neexoon ñu nommer tout de suite un procureur un mois mu jë mu jëlee ko fa. ci kon mënu si dara parce que yoon moo ko may. Mm-hmm. léegi bu ko neexoon tey mu bàyyi kooku nga xamante mooy Aly Ciré Ba mu toog fa. Mm-hmm. mais bu ko neexoon tey mu ñëw ne ko président léegi yóbbu naa la à d'autres fonctions comme nu mu ko defee général Fall donc loolu je dis bien c'est pas un débat mm-hmm. parce que bu moom bu jàppee ne lii nii sabotage la loolu la gën a niru mais da koy da fiy jëlee donc bu doon jàpp na ne aussi baax na da ko fi bàyyi la preuve Omar Samba Omar Samba Ba Euh, est-ce que jëlee nañ ko fi mais il est là demal présidence beaucoup de Sénégalais travaillent à la présidence ils liggéey nañ ak Macky Sall mhm. mais duñ fi jógee ñu ngi fa parce que liggéey moo rafet dañ fay mhm. teg maintenant boo jàppee ni kii duñ ko fi indee jaarul yoon da nga fiy jëlee loolu quand c'est pas débat c'est pas un débat mhm. d'accord ñu terminer ak maître Moussa Diop euh, démb ci conférence de presse bi nié na les accusations